leen di wax ne jeunesse en marche fa mu nekkoon démb ak barki démb fa la nekk ba léegi ndax ku nekk xam na ni heure bii daaw lañ sosoon jeunesse en marche ñu daje woon fee garage bu bees ba ci en face garage bu bees ba mu doon ndaje moo xam ne ay ndaw rek ñoo ko séq kon buñ ñëwaatee ba tey di feete suñu anniversaire at mbégte la moo xam ne xam nañ fi mu commencé waaye xamuñ fi muy yem ñu ciy sant bépp responsable boo xam ne yaa ngi ci diggante département Mbacké ak Touba ndax li may wax rek leader bu fi nekk ak responsable bu fi nekk boo jëkkatiwul sa poste def ci jeunesse en marche nga jël say ndaw bàyyi leen ñu nekk ci jeunesse en marche nga di leen encourager pour ñuy doxal kuréel kon loolu moo gën a fort lépp plus particulièrement ñuy gërëm soo son excellence Mbathia Diakhaté ambassadeur itinérant ndax comme ni ma ko waxee sànq keroog ba ñuy sos kuréel bi daf ñoo wax wax ju am solo président moo tax may def keneen taxul may def lépp lu ngeen xam ne yéen a ngi ci muy may président ndam ci dëkk bi fépp fu ngeen ci toll bu ma ko yëgee dinaa ko def te loola mu ñu waxoon ba léegi teggiwul tànkam benn yoon suñu journée lancement ba daaw ba ren jii bépp programme boo xam ne jeunesse en marche taxawal na ko ci diggante bi dañuy bind suñu budget ñëw jox coordinateur Ibrahima Ndiaye moom mi nga xam ne moo dox suñu digganteek moom bu paree day dem indil ñu liñ laajoon yëpp ñu def suñu programme ba ci anniversaire bi kon moom it ñu koy sant di ko gërëm di sant Ibrahima Ndiaye ak ñi mu àndal ñëpp parce que damay wax ne jeunesse en marche ndaw yi ko séq am na ci ñoo xam ne sax xamuñu Pathé Diakhaté wala mësuñu koo gis waaye suñu coordinateur Ibrahima Ndiaye mooy ki nga xamante ni lépp loo xamante ni moom lañuy def wala moom la ñuy wax moom lañ ciy waxal te yàqu ci dara parce que ñun duñu dem ci paate duñ ko gis duñ waxanteeg moom téléphone waaye moom mi ci diggante bi lépp loo xamante ni jeunesse en marche soxla na ko mi ngi ciy taxaw chaque jour ñuy sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn leader yi ci département bi yëpp ku ci nekk anniversaire bi jàpp nga ci loo mën muy madame mbay di ayda gay honorable député madame Mbacke ma Fallou ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn képp koo xamante ni yaa ngi ci département bi ñoom ñëpp a ngi fi bàyyiwuñu kenn di sant sëñ Cheikh Abdou Bali Mbacke ñoom ñëpp bàyyiwuñu kenn ndax sëñ Cheikh moom it jàpp na ci ñu koy sant bu baax di sant yéen ñi fi teew ñëpp di sant sama mbokk jigéen ñii nag ndax ñii man awma seen fay ñoo ngi nii bañ jàppee datu anniversaire bi ba léegi kenn tëddatu ci nelaw chaque jour dañuy xëy di réunion ba ngoon bu ñuy réunion sax dañuy toog añ di añ di yendu sama kër ba guddi ñu ànd ñibbi ñoo ngi ñoom ñëpp boobu ba léegi tëdduñu nelawuñu dañuy jàpp ci bis bi ku nekk loo xalaat ne loolu mooy doxal bis bi nga nekk ci ñu ngi leen di sant bu baax ndax lépp lu taaru ci bis bi wala lu fi rafet rek yéen la di sant mobilisation bi ñi nga xam ne ku ci nekk jóge nga ci quartier ñëw ñu ngi leen di sant sant suñu mbokki bopp yee ak suñu yaay ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen wax ne lépp ñoom la di ñaanal honorable député Abdoulaye Seck Sadagar yàlla delloo si ko ci sagoom dama koo jotoon mu ne ma maam jaara ma ne waa mu ne ma incha la le 15 la may fekk te damay ñëw ci seen programme waaye jaam ak pexeem yàlla ak dogalam kon tey su fekkente ni yàlla indi na dogal dañuy xam ne moom jàmbaar la ku xool bis bii tey xam ne manqué na ci ndax lépp lu ndaw ñuy def mi ngi taxaw suñu wet taxaw suñu kanam taxaw suñu ginnaaw ñu ngi ñaan yàlla yàlla yëkkati ko dellu si ci activités yi lépp lu ñuy def ñu ànd koog moom incha allah di sant ñi fi nekk ñëpp communicateur traditionnel yi presse bi ak yëpp bàyyiwuñ kenn di sant membre jeunesse en marché yëpp